Mixta day gox boo xamante ne maanaam niñ ko tabaxee dafa rafet ba jéggi dayoo parce que am nañ piscine am nañ jardin bu yaatu boo xamante ne nit ku nekk dina bëgg di def sinap wala di def photo bu rafet pour dugal ko soit que ci Facebook am wala ci leneen ñu bëri looloo tax ñuy préférer di jóge feneen di ñëw fii di fi nekk mais nit yëpp bokkuñu bëgg-bëgg li tax ñu ñëw fii nii. am na ñoo xamante ne dañoo ñëw ngir def lu baax am na ñoo xamante dañoo ñëw ngir def lu bon fii tamit suñuy yaay yu baax ñoo fi dëkk ñoo xamante ne dañ fi nekk ak seeni doom mais jour korité am na ay xale yoo xamante ne jàpp nañ leen am na xale yoo xam ne dañ ñëwoon di ñaan si ndéw leen xam nga wala di seet seen yenn mbokk yu nekk fii ñu ama ak ndoom ñoom ak problème loolu dama koy avouer dama koy nangu mais vidéo bi nga xamante ne moom la Sénégal ñëpp wax dëgg yàlla di wax loolu moom man du ma du ma bëgg lu neex nit wala di défendre kii que ce soit bay jël di wax loo xamante ne maîtriser wu. Mixa ak ni mu weexee xam nga moo tax dafa weex donc lu ñuy wax rek dañ naan Mixa mais daal vidéo bii di daal nga xamante ne actuellement moo lëmbe dëkk bi ñëpp di ko ñaawlu wax dëgg yàlla loolu du cité waaw comme loolu du mooy li ma lay wax. du Mixa rek moo am appartement meublé wala leneen parce que benn fii Mixa duñ fi loué anniversaire fii bañ na ko ba ñun sax ñun ñi nga xam ne dañ fi dëkk laa lay wax nii suñuy ngénte amul musique amul tëgg tama amul dara parce que résidence la quoi te tamit àqu dëkkandoo dañ ko war a sàmm fii benn ñun ñooy gis loo xamante ne naka sudul noonu ñu woo waa police parcelle neleen leen carrément gis nañ fii lii ak lii ak lii parce que tamit gox bi suñu gox la ñun ñooy ndaw yi maire yi amaana am na yu bëri loo xamante ne ñun suñ ko jàppalewul délégué de quartier bi wala jàppale police pour yenn ñi nga xamante ne mineurs yi fii ñëw wala naka sudul noonu kenn du ko def bu njëkk ba nag maanaam dañ doon bërinte kersa suñu biir wala di bañ ay réeroo wala dara mais toog nañ ñun ñëpp ñu waxtaan ñu trouver terrain d'entente wax leen carrément lii ak lii ak lii du ñu tere kenn mu liggéey ci appartement meublé yi mais tamit nañu xool li gën a rafet ñu di ko def parce que ñun tamit nekkuñu ci loolu mais dañu fi dëkk te tamit bu dul dara suñu image wala des fois sax dañu am ay xarit yoo xam dañ leen di wax ñu ngi fii mais dañuy préférer ñu dem ñu daje feneen wala ñu gisante feneen te loolu war na mën a ñàkk solution am na te bientôt incha allahu rabi loolu dinañ ci toog ak délégué de quartier bi dinañ dem ba police parcelle gisee commissaire bi incha allah dem tamit ba mërs waxtaan ak ñoom incha allah ñoom it dinañ ñu gën a yaatal lu bëri te te li ñu digal ñu def ko dinañ ko def.